Salam alaikum wa Sénégal alaikum wa Adina. salihal salam sen sœur sen xarit sen mag s'en s'en tante tout ce que vous voulez mo ñëwaat di waxtaan ak yeen. mais xam naa ne vidéo bu gàtt lay doon euh, damay tàmbali juste juste juste ci waxtaan ak sénégalais les votants les électeurs l'heure devient grave est très grave d'ailleurs dégg ngeen ya, Fatou Diagne l'ex prostituée wala l'actuelle prostituée ndax moom gourto ak taxawaalu moo mës a tas mo yëpp moo xam sëyam bu njëkk ba ci Ahmed Khalifa moo xam sëyam bu mujj bi ci Serigne Mboup moom taxawaalu rek la fa nekkee mais ni ci mi dañu dem nga bandi taxawaalukat yi sàcc yi opportuniste yi ñoom ñëpp def coalition bu mag derrière Macky Sall ma bëgg électeurs yi sénégalais yi le citoyen lambda mu xam boppam xam ka muy sànnil kartam waaye bu ñu demee ba ci le jour J ba war a voter àddina bépp d'accord nañu ne la majeure partie des sénégalais jotuñu seen carte ñi jot que seen carte kus néew te nga xam ne xam nañu xel ne dinañ voté feneen fudul APR fexe nañu ba changer leen ay lieu de vote à leur insu am na vidéo boo xam ne tey ji partagé naa ko sama page Touba la xewee doom ak way juróom wu jigéen ak ña dëkk ca biir kër ga ak ña dëkk ca biir koñ ba jox nañ leen ay mbubb Macky Sall te yëguñu laajte kenn tàggoo kenn tàggoo defal nañ leen carte d'identité yu bees te kenn tàggoowul kenn laajtewul changé nañ leen yóbbu leen ba cilmaxa à insu xanaa kon bu ngeen gëmul ba tey ne Aly Ngouille Ndiaye xaj la kañ ngeen koy gëm suñu destin ñoo ko moom suñu Sénégal ñoo ko moom en tey le commun des sénégalais tey amuñu droit jël seen carte dugal ko ci urne yi ci mbañ gàcce mënuñu ko ndax Aly Ngouille Ndiaye waa léegi na leen jaral seen bakkan gannaaw ba ñun duñu xeex ñun duñu xuloo ñun demuñuy geer ñun jëluñu jaasi di ko gorante mais suñu carte lañu am waa léegi suñu carte électeur moom mënuñu see jot kon daal APR via Aly Ngouille Ndiaye dañu lay toxal jox la carte bu bees te doo yëg yóbbu la cilmaxa wala feneen foo xam ne yow yëguloo ko inscrire la fa maanaam léegi bu ñu demee ba ca le jour ji war a war voté ñu ne la fii mënoo fee voté soo gëstoo bëgg a wax ñu jox la mbubbu Macky Sall ayo mbubbu mbubbu Macky Sall moom ngeen di tayli seen avenir seen avenir doom wala benn junni wala juróomi téeméer ak sandwich lii ngeen di jaayee seen ngor dama ne bu leen ko nangu de amu leen njëkk kenn du leen jënd amu leen njëkk yéen a moom seen bopp te yéen a mag junni yéen mag fukki junni te yéen a mag million dafa am góor gu mag goo xam ne taalibe Serigne Fallou la woon jamono bi Senghor ak Lamine Gueye di xëccoo xëccoo bu métti ba dafa daan wax ne ku safoon xorom la laminuma sengooruma maa ngi ci fàllu bu wote jotee ma woteel ka ma neex dellu ci fàllu dama ne am leen fulla am fayda bu leen xeex bu leen xuloo gum laa wax de bu wote jotee ngeen jël seen carte wala dem dugal ko ci mbañ gàcce bi bu ngeen demee nag ba le jour ji te mënu leen voté waaw buñ ca àggee nag lu golo xam bootee doom ndax malgré lépp li leen Ablaye Wade wax amul benn opposant bu taxaw daal di ne nañu taxaw ñu saytu fichier bi ndax kat fichier bii nga xam ne Aly Ngouille Ndiaye yor na ko bu ñu demee ci fichier bi élection Macky Sall dina gagné 53 wala 57 pour cent ndax lépp ay sàcc lay doon ma bëgg ngeen yeewut a xam seen bopp. gis nga tey jii ni Youssou Ndour def xeex laay Wade ndax kat Youssou Ndour xam nga lu tax mu xeex Karim Wade ak Ablaye Wade xam nga booba Ndour maa ngi dégg keroog muy muy muy jàll baat góor gi Abdoulaye Wade Cheikh Abdoulaye Wade sax laay wax parce que sëñ Mountakha nee na ci magu murid yi la bokk Bouba Ndour taxaw ne kan mooy ab Abdoulaye Wade ma ne ko yow yaa war a xam ab Abdoulaye Wade ndax sa baay moo yaakaaroon doomi Abdoulaye Wade sa baay Elimane moo nekkoon génération du concret bu Karim Meïssa Wade di ko guddil di ko bëccëgal Karim Meïssa Wade yóbbu na Elimane Ndour sa baay Makka kon yow xamoo Ablaye Wade waaye sa baay moom xam na doomi Ablaye Wade xam na famille Ndour lu ñu bañee Youssou Ndour lu ñu bañee famille Wade ma leeral leen ko tey Youssou Ndour dafay def Bercy tout ko Karim Watt. jox invitation d'honneur tout ko Tout tuddee ko Karim Watt daal di mais ces trucs là je peux pas y aller tu sais vous savez nous sommes en train de bâtir le Sénégal le Sénégal est un pays actuellement en voie de développement je peux pas laisser mes chantiers ici et aller m'amuser en France à ah, Bercy, je ne pourrai pas. Mais t'inquiète, je pourrai vous aider. Qui Liguez la Qui kii taalibe la Karim Wade doomu Abdoulaye Wade borom il faut travailler toujours travailler encore travailler et beaucoup travailler Koko beaucoup de dee tëggee ay lamba soirée que sabaroo ka ñappi-ñappi doo ko gis biñu génné génne ci loolu Youssou Ndour gis bopam bayam xam nga deretu téegal du moy lupp borom bay ba daal ne ko sama doom kon xaaral donc ma génn ci génération du concret waaye sa bay ay xarit tabaski Karim Wade moom du ko du ko hamul du ko du ko du ko waat sa bay ilimando yow yaa xamul Karim Wade yow yaa xamul kan mooy abdoulay Wade ba toog ci sa télé mag yow caga bi borom xam nga lu baax li la jigéen waxal borom tuuñaa tuuña tuuña laaj leen ko eh, Iran Ndaw tuuña kon Bouba Ndour yow xamoo Abdoulaye Wade waaye sa baay moom xam na abdulaay Wade ma bëgg ngeen régler te xam ne réew mii ëpp leen nit ñi làmmiñ ëpp leen nit ñi wax lu ngeen xool ci nit ba bañ ko nit xam na ko ci yéen fukk ak juróom teg ci tànkam ndax sutura waaye ci réew mii lañu nekk Yafatou Diagne nag

pàccoo la tasaare sa yaram bi sa sëy tas nga jóg dem ca Serigne Mbuub Alioune Sall ñoom ak groupe googu groupe mbalit yooyu euh, pasar pasare sa yaram bi tekki woo dara te yow yaa Fatou toog nga ci salon de coiffure bu ma wax loo yekk fa Marème Sall loo xam ne weñ wu ko tàb weñ wu ca tàbbi dee yaa Fatou Diagne dama ne toog nga ci salon de coiffure di fa yàq Macky Sall Marème Faye Sall loo xam ne weñ wu ci tàbbi dee danee na naa fekk nag li may woo ci sénégalais mooy xam leen seen bopp xam leen seen bopp xam leen seen ay nit yu tekkiwul dara ñoo yor micro bi di di wax sànq damay wax ak benn nit mën na ko Aïssata Tall Sall xam nga lan lañu ñu ëppalee elle a une waaye gënuñu juddu dàquñu jàng seen degré ñàkk jom nag dafa dafa tiim xarnu bi lii daal muy dëgg ñun daal amuñu dara waaye am nañu ngor du ñu jàpp di bàyyi du yàq doomu aadama du ñu du ñu du waxal nit lu xamul waaye nag boo defee sayu bon ba pare amuñoo yow soxla waaye bés boo jógee ne nga yaay dangay ngay dal doomu aadama yi wala dangay ngay jéem a toroxal nit dinañ la ne hey regleel xam sa bopp ndax def nga fi nangam ak nangam nit ñi teg ci seen tànk kon du yow yaa war a joxe ay leçon de morale. ma bëgg élection yii c'est déterminant yéen Sénégalais yi élection yii ñu jëm. c'est déterminant ma wax ko waxati ko waxati ko dama koy jooy ba keroog soppeeku di am Macky Sall bu rëccee ba ngeen dégg ne gañe na gañewaat na maanaam sàccaat na mandaam bi wees bu ci bokk day toogaat yeneen ñaari mandat bu jógee ci yeneen ñaari mandat yooyu le PS de Ousmane Tanor lay joxe faut sécuriser gens parce que Macky Sall la ko fi ak actuellement à part l'homme le plus riche au Sénégal Aliou Sall la mongol raté nañu ba Aliou Sall un milliardaire la ngeen doon Karim Wade kon ngeen ci Aliou Sall dégguma ana ñu doon xeex loolu ana ce grand menteur devant l'éternel ana zara et Thiam ana Penda Mbow ana ñi fi 2011 ana ñi fi jógoon 2012 gis nga leen ne ñoom ñëpp Macky casé na leen tey de sénégalais baa ngi bëgg a ku jóg di ko xeexal yéen leen sëriñ si nga xam ne dañoo nekk régulateurs sociaux gis ngeen sëriñ si jóg di peuple gis ngeen ko bu ngeen ko gisee nee leen ma waaw sëriñ sëpp jóg nañu ñi ci ëpp bokk bootu ci ginnaaw Macky Sall kon peuple bi yaa xëy ci mulaana ku koy jooyal kartam la dese woon carte ba xañ nañ ko ko waa ma ne bu ñu deemee ci le 24 février nga la rekk waay yow citoyen bi yow sénégal bi sa bureau de vote na la jaral sa bakkan su fekkee da nga naan point a ñu yóbbu la Diourbel na ko àddina yëpp yëg na nga ne fii laay voté parce que même fii ci Amérique def nañ ko fi ñi daan voté Bronx bureau 4 ñu ci bëri jëlee nañ leen fi yóbbu leen ci yeneen liggéey de vote te lépp nag à leur insu duñ leen tàggu duñ leen yëgal lii la Aly Ngouille Ndiaye def bu ngeen demee ba war a voté nag ak ñu daan ne leen yéen de du ngeen voté fii ngeen tañax tañaxi ñu sànni leen foo xam ne sori na maanaam xaalis ga du ko mate pour nga mën a tukki dem ba foofu ñu la yóbbu pour voté ji dégg ah jot ga du la ko may su ko defee carte boobu ñuul bu ñu demee nag ba war a wàññi kon ñu voté Macky Sall rek la ñuy wàññi waaye léegi yéen d'accord ngeen lii yéen nangu ngeen lii. buñ ca àggee mbaa du ngeen ne Abdoulaye Wade yeeyeete nañu mbaa du ngeen wax ne maître Abdoulaye Wade waxoon nañu lii xanaa yéen xamuleen ne ay ay magistrat sonné nañu l'alerte am na loo xam ne mënuma ko wax mais ay magistrat wax nañu nii muy demee des résultats préfabriqués depuis avant vote. waaw buñ ca àggee lu ngeen di def vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. doomu ndey samay doomi baay wax dafa metti te dama yaakaar ne ñiy wax ak def vidéo amul benn opposant bu leen jox dara amul kenn ku leen mës a ci fayu luyaas wala paas wala lu ñu dugg dugal ci seen biir seen ñaq la ñuy dundee waaye benn jàngoro rek la ñu bokk mooy Sénégal mu bëgg rek Sénégal dem ca kanam ndax day ay président dañ naan jóge ci yeneen i réew di di laaj si Ablaye Wade nu mu développé Sénégal Macky Sall avant élection yi dafa dem gis nga ko banque mondiale lépp fa alal ju bëree bëri nga xam ne tey Macky sàll bu daanoo ki fi nar a nekk moo nar am problème boobu xaalis fu mu koy fayee gis ngeen tey Moustapha Gueye mii kii di wax ne nañ voté Macky Sall dafa am doomam bu góor boo xam ne vendeur de drogue la bu mag italy ñu refulé ko génné ko Macky Sall défal ko passeport diplomatique mu delluwaat italy Italie wat ca drogue ga loolu moo waral bayam tak ndigam di campagne Macky Sall réew mi li fi xew xam nañ ko de dañu tay ci wax ji waye xam nañ li fi xew Alaaji Moustapha gay mom gis ngeen Nioro ndjay framason bu mag bu jigen bobu ci wetam waaw ñoñu ban islam lañu lañu représenter ñooñu ngeen nangu ñu nekk seen imam gis ngeen démb imam boobu doon sikkaral Macky Sall naan ko xawma lan ak lan wallaay ma ne nekk leen nit te yeewu seen avenir bu leen ko tayile seen avenir bu leen ko tayile seen avenir bu leen ko tayile fàllu seen ma ñu rey dégg naa ñu ne yaayam ma ngay campagne Macky Sall loolu di ñun dara leeruñu ci ndax gisaguñu ko déggaguñu ko te am nañu bët am nañuy nopp ndax xam naa ne doo doo am benn doom ñu boom ko nga wëlbatu ko di campagnal ñi ko boom kon yaay booy soo déggee lii ñu la wax na ci indi ay leeral ndax kat sa doom yaa ko jur waaye ñun ñii da jooyal nañ ko ba tàyyi lii ba fekkee ne tuuma la yaay na ci indi ay leeral sekk njaay moomu ñu boom fàttewuñ la benn yoon nguurug makki sàll gi ayug Macky Sall gi ñi ci boom bari na lool te taxul ñu taxaw li jënd ko Pape yëmbal dañ koo sotti gasoil taal ko ñooñu ñëpp dossier boobu teg nañ ko na un gouvernement criminel ngeen ne yéen a ngi leen di joxaat deuxième mandat réew mi nga xam ne Youssou Ndour vidéo bi barki Dembo Ndiaye la 2011 2012 bi mu naan buñ leen joxee xaalis lekk leen waaye bu vote jotee dem leen voter ka la neex mais Youssou Ndour yow yaa naa fekk te bon waaye Youssou ak l'éternel maître chanteur Youssou Ndour moom ne du bàyyi mukk du changé Youssou daal il va devenir il va rester un mercenaire et un imbécile jusqu'à la fin de sa vie Youssou Ndour mu ne moom du changer. il sera éternellement euh, une pourriture ma ne sama gaay lupp tuuru ah. ñoom moom suñu bopp réew mii ñoo ko moom suñu Sénégal gii suñu Sénégal la ma ubbi benn parenthèse foofu defoon na live barki dem doon ci wax ci suñu diggante ñun suñu biir jullit bi chrétien bi tiijaan bi xaadar bi laayeen bi nañu bokk ndey te bokk bàyyi te buñu buñu buñu buñu buñu warante ay baat buñu warante ay kaddu buñu wax wax yo xamne rafetut amuti teggin suñu biir Maram mbacke moy mamu wa Touba Maram mbacke moy mamu wa Tiwaawa kon ñoo bokk lepp man julit bala ma gëm ne sa julit deug la dañuy nekk un fédérateur di boole te fofu fekke fu ñuy tasaaree nga jóge mbokk jullit jullit du dagg ak mbokk mbokk dafa sacré waaw mbokk dafa sacré Sénégal gépp daanaka këru diine gépp benn lañu boo xooloon bu ngeen xamoon tey waa kunta kunta yi lañu bokk kër Serigne Fallou Mbacké di ngeen xam ne nit dafa war a maandu ci lu bëree bu ngeen xamoon tey soxna Seynabou Ndiaye mii way juru maam Cheikh Ibrahima Fall bu bu menn ak soxna Borsa Ndiaye mi nga xam ne moo jur gaynde nguraan ay maga rakk rek lañu kon Sénégal gi benn garab la càllara gi mooy ñu ne këri diine yi maanaam le Sénégal dans son benn garab la xob yi mooy këri diine yi ñun yéen ñëpp Sénégal am na place pour ñëpp tiijaan bi xaadir bi chrétien bi athée bi ñëpp ndax nag yàlla ci màndoom gi dafa ne wala xadd karam naa ba ne aadama doomu aadama dafa fooraan ah. doomu aadama dafa foor nañu la wax metti na waaye bu ëllëgee dinañ mën a toog suñuy doom yàlla yàlla may gudd fan ak wér ñu ne ba muy metti indi woon nañu suñu touche personnel xeexoon nañu pour suñu réew yàqoon nañu suñu ay nelaw pour suñu réew ngeen bañ a déglu nit yu bon yi di véhiculer ay messages yoo xam ne dara baaxu ci man bala maa bëgg a dee ñu ne dañuy song Ablaye Wade yéen Ablaye Wade il est là pour délivrer xam ngeen li mu wuti Conakry loolu xam ngeen ko xamu leen ko xamu leen ko Abdoulaye Wade du def dara ci tey euh, teyu bakkanam wala lu ko neex lu mu def rek am na lu tax te renseignement yi mu am ci élection yi ay bu ngeen ko mayoon nopp ay bu ngeen ko déglu lu mu leen mës wax bu ngeen demee ba ci biir danga naan góor gi waxoon na góor gi waxoon na mais kañ ngeen di nekk nit nag mën a déglu góor gi vieille chanson bu rodé bi mooy lépp lu mu yëkkati rek ñu ne doom ji la famille fami bi ñu gën a diffamé ci kaw suuf mooy famille Wade Ablaye Wade bu muy tëdd ati kasoom yi boobu daa faale Karim 78 ba tey Abdoulaye Wade di xeex démocratie boobu dafa faale Karim Abdoulaye Wade li mu defal Sénégal ba tey ji lu mu yëkkati rek ñu ne doom jaa tax waaye yéen kan moo bëggul doomam kan moo bëggul doomam mais c'est pas la vérité nañu bàyyi rumeur bàyyi ay fen bàyyi ay sos bàyyi yokku nañu bàyyi loolu fii lay yemale vidéo bi yaa jaañ caga du bëri wax yaa jaañ caga du rëy làmmiñ yafaatu jaañ sëy boo am góor tas na ko yaa faatu noppil bàyyil wax nga dem toog nga ne fugum dugg ci sa ruq mbanakan yedd sa bopp te nga dimbali ñu Sénégal bu dee titre foncier la te Macky Sall la ko moom

kon yal nañu yàlla defal jàmm yal nañu yàlla defal sutura defal ñu salaam wàcc taw féex ci kaw Sénégal ak doomi Sénégal yëpp fu ñu mën a nekk yàlla wàcc fa jàmm au soir du 24 février ngeen jàpp Macky Sall génne ko ca xaj ndax xaj bu mu xaj bu xaj xaj daal xaj sax a ko tane ndax lii nga xam ne Macky Sall ko